merci ça va. je vous donc euh, ngeen jéggal ñu rek ci interruption bi madame le maire bi ngay egsi yaa ngi fekk. ma présente yi nga xamante ni caucus des femmes leaders yónnee nañ ko fi ma présenté aussi xam naa gudd na gudd goo xam ni du ma mën di ci jaaraat conseil di ci fan yu néew di ngeen am ci biir campagne bi ñu war leen a présenté bilan bi nga xamante ni liggéeyal nañ ko Dakar waaye ak fan la ñu jëm ak ñoom di fàttali rek ndax fàttali dafa am solo suñu borom moo ni fa zakirina fàtti zikra del fàttali ndax nit kuy fàtte la muy jëmm ji toog àndam ak le président xalifa Ababacar Sall xëy na sax yàgg na tàmbalee ca Bennoo Siggil Sénégal 2009 waaye rek su may gaawal damay ñëw ci 2014 moom mii membre fondatrice la bu taxawu Dakar bi nga xamante ni tey mooy porter candidature bi ndax taxawu dakaar moo màgg ba doon taxawu Sénégal taxawu Dakar yàlla dogal mu ànd ci ak le président xalifa Ababacar Sall 2014 mu diriger listu maire yi commune bi nga xamante ni mooy Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral ni jëmm ji toog moo doon test tête de liste Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral ni jëmm ji toog moo gagné 2014 Mermoz Sacré-Cœur ma leen di leeral ni jëmm ji toog ci dégg ndigal ak fas yéene liggéey la président xalifa Ababacar Sall ba mu gañee Mermoz sacre cœur en 2014 la ko président xalifa Ababacar Sall ni ko man maa lay ñaan ni ñu mel man ak yow ci àndandoo mën a liggéey. nga bàyyi commune bi ñëw man à la ville de Dakar mu mel ni Khalifa visionnaire la bu gisoon lii war a xew ni ko nga ñëw man à la ville de Dakar mu def ko première adjointam ñu ànd ci liggéey bi loolu moo jur ba ni mu remplacer xalifa Ababacar sàll fii ci mairie bu Ndakaar loolu du hasard lu yàlla suñu boroom dogal la loolu nag bi mu amee mu liggéey fi liggéey bu am solo conseil municipal bi comme mësuñoo réeroo surtout ñun ñi nga xamante ni ñoo àndandoo woon ànd ak le président Khalifa Ababacar Sall pare ànd ko ak moom ñu gis li ñu jot a liggéey Dakar waaye gis ko ñu gis naal bi ñu am nga xamante ni Dakar fii ñu jëm ci moom taxawaayam ñu respecté dakaar fépp ci àdduna bi ñu gis some yi gën a mag ci àdduna bi war a am dakaar ñu gis JO 2022 yi war a am fii dakaar ñu gis sommet bi nga xam ni wàllu ndox eau fii lañ ko war a waxtaane ci dakaar ñu gis li nga xam ni forum économie solidaire yi àdduna doon xëccoo mu war a njëkk a am Afrique muy amee ci Dakar ñu gis ni moom en un rien de temps mu nar a def Dakar capitalu Afrique loolu ñu war a waxtaan ak Dakar waaye fan lañu war a jëmalewaat bilan bi ñu ànd ak moom ni ko ñun dañoo pare pour sampat sa candidature nga jiite ñu continuer li ñu naal ak askan wi waaye nag moom jigéen la joo xamante ni baaxawul wax lu bari liggéey tekk ak am kilifa lañ ko xamee mu ni ñu dafa am fu ñu bokk man dama bokk taxawu Dakar bokk ci membre fondatrice yi taxawu Dakar boobu lépp lu may def taxawu Dakar a koy def mooy moom mu nekk candidat à la candidature de Yewwi Askan Wi ci biir taxawu Dakar taxawu Dakar nag bokk ci coalition ndax taxawu Dakar moo màgg ba jur taxawu senegaal taxawu senegaal bokk ci coalition bu tudd coalition Yewwi Askan Wi donc coalition Yewwi Askan woowu am charte bu mu teg am ay circulaire yu mu génne mooy xamal ni ñoom ñi ànd nga xamante ni ay parti politique yu bëri la ak ay mouvement gox-goxaat yi dana am ay xëccoo yuy am waaye élection yi ñu jëm charte yii lañ ci nar a demee charte yooyu ñu ci nar a demee mooy képp ku ci nekk fi nga bokk fa ngay déposer sa candidature foofu nga bokk ñoom ñooy tànn benn candidat benn candidat bi ñuy tànn moom mooy ñëw doon candidat à la pour pour Yewwi Askan Wi par rapport ak poste x wala y maanaam lu mel ni mairie ville de Dakar moom nag dafa mës a tënku ci kilifteef mu defe ko ni ko charte bi waxee mooy ci biir taxawu Sénégal taxawu Sénégal mooy def képp kuy doon candidat taxawu Sénégal moo lay defal lettre d'accréditation wane ni moom taxawu Sénégal mandataire bii nga xam ni xalifa Ababacar Sall moo ko tànn muy Cheikh Gueye wax na ni yow taxawu Sénégal investir na monsieur X ou madame Y mu nekk candidat wu taxawu Sénégal à la candidature de Yewwi Askan Wi ndax lii leer na loolu ba fii ñuy wax ak yéen amul kenn koo xamante ni bokk nga taxawu Sénégal ku am këyit woowu ma baamu ndax mu leer dama ni amul mbindeef bu nekk tey ci biir taxawu Sénégal bu la mën a wax ni candidature Dakar ni ko charte bi waxee nga xam ni dañu parti yi ak mouvement yi ñoom ñooy déposé parti bu ci nekk benn nit ngay déposé ci poste à pourvoir bu mu mënti doon nga xam ni dañ lay jox lettre accrédité wane ni taxawu Dakar Sénégal moo ni soo am war di ni bii par exemple def investir nañ ko pour mu nekk candidat à la bu taxawu Sénégal ci biir Yewwi Askan Wi loolu amagul ci kenn tey fi ñu toll mooy taxawu Sénégal choisiragul kan mooy doon candidat à la ville de Dakar madame le maire nag wax ji bari ñi ñuy interpeller bari Dakar waa yi nga xamante ni bi mu egsee dafa boole en plus de sa loyauté en plus de sa fidélité en plus de d'avoir porté haut le flambeau qui a été allumé par xalifa Ababacar Sall mu tënku ci kilifteef jaarale lépp fa mu ko war a jaarale nit ñi xëy rek di dégg ni diw du doon candidat comme madame le maire wala nangam mu laaj ñu taxaw ak askan wi leeral la leen ñu xam ni jëmm ji toog di madame le maire Soham El Wardini est bel et bien candidat candidate à la candidature de Yewwi Askan Wi ci biir taxawu Sénégal loolu ñu bëgg mu leer ci bopp ñépp gis nañu nag ay not yu bari yu génn waaye yooyu jàpp nañ ni jarul solool ndax toll nañ ci moment yoo xam ni ay manœuvre politique ak ay comploteur ak ay mbir bari na fi lool waaye lenn rek la ñuy wax mooy décision bi taxawu Sénégal moo koy jël le président Khalifa Ababacar Sall ak équipe ñooy décider ni diw mooy nekk candidat taxawu Sénégal à la ville te loolu ba fii may wax ak yéen beneen information boo ci jot que ni loolu amagul jàpp leen ni c'est une info information erronée c'est une fausse information taxawu Sénégal eggagul foofu c'est de la manipulation ngeen xam ni aussi fi nga xamante ni fa jëm mooy élection locale yi yàgg nañu dund yu mel nii waaye dañ ni ko am kilifa du gàggandikoo ci mbett mais it askan wi ak militants yi mënuñu leen bàyyi ñu jaaxle am njàqare yaakaar ni madame le maire nekkul candidat ci loo xam ne ñoom dañ ko ci doon xaar moom nag candidature ni ma ko waxee da ko weesu moom ñun ñii fa ñu dëkk gox ya ñu nekk madame le maire mii falu ju fa dañoo jubóog suñuy mbokk waxtaan ak suñuy waa dëkk ku ci nekk sa commune kilifa yu mel ne suñu papa Mansour Tambédou mii Aminata Diallo mii xalifa euh, formé Nafisatu Wade bii nga xam ne ku ne xàmme na ko di jigéen ju mën góor nekk HLM nga gis Dakar dans sa diversité et les différentes commune nga gis taxawu Dakar ci composition bi nga xam ni mooy composition taxawu dakaar mooy parti yépp nekk ci doonul rek nos frères et camarades socialistes mooy la composition de taxawu Dakar taxawu Dakar maanaam lii ngeen di gis nii la dafa bari ay parti yoo xam ne ñoo ko composé loolu nag saa yuñ ci eggee ci ay moment yu mel nii bëri na ay manœuvres yu daan am bëri na ay manipulation yu am waaye ngeen xam ni taxawu Sénégal tànnagul te di ngeen dégg dans les quarante huit heures rek que diw ak diw ñi ngi leen di woo ñi ngi xool kan ak kan mooy nekk candidat waaw bu dee loolu am na kon naka la ñuy waxee ni tànn nañu ba pare wala diw naan moom la ñu nangu candidature am bañ candidature keneen commission yi aussi bu dee ñun dañoo nekk ay alliés di ànd mais la logique d'une alliance kay ku ne xam na ko mais commission bu bëgg a nekk à la limite benn cour suprême wala ministère de l'intérieur ay diw egsi na telle heure balaa telle heure forclos nañ diw annulé nañ diw yooyu amaluñu solo li ñu amal solo mooy li nga xamante ni mooy am dans les jours à venir te taxawu Sénégal war ci jël décision lii lañ leen bëggoon a leeral ba mu leer naññ ci seen bopp en wolof doog leen a defal résumé bi en français am motion boo xamante ni sama sœur madame Aminata Diallo day ñëw fii ma toog liir ko defaale leen résumé bi en français nga xamante ni dana da ngeen xam ni conseillers municipaux yi ñu ngi ci ginnaaw madame le maire pour ñu continuer la vision du président Khalifa Ababacar Sall portée par cette brave dame portée par cette dame de fer portée par cette dame loyale portée par cette dame fidèle bi nga xamante ni Ndakaaru mooy laajaat mu taxaw wane bilan bi ñu continuer li ñu war a liggéey pour les Dakarois ma sœur aminate Diallo nga ñëw lire motion bi waaw. merci beaucoup monsieur le maire Badara Gadiaga. Merci à tous les membres du conseil municipal qui sont ici présents et sympathisants. Merci à toutes ces, tous ces militants et militantes de Tahaou Sénégal, de Tahaou Dakar qui ont bien voulu faire le déplacement pour soutenir leur sœur, Madame Soam El Wardi. Tahaou Sénégal, Tahaou Dakar et conseillers municipaux et sympathisants. Résolution. Nous, membres de Tahaou Dakar, conseillers municipaux et sympathisants, réaffirmons notre soutien total à Madame le maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini. Soutenons la candidature à la candidature de Soham El Wardini à la ville de Dakar. Rappelons que conformément à la note circulaire numéro de la coalition Yewwi Askan les candidatures individuelles ne sont pas recevables. Il est clairement indiqué dans ladite note que les candidatures des partis ou mouvements sont déposées auprès de la commission départementale ou de la commission communale des investitures compétentes. Précisons que Tahaou Sénégal, en tant qu'organisation politique, n'a pas encore déposé de candidature au sein de la coalition Yewi Askanui. Je souhaiterais ajouter quelques mots par rapport à cela, par rapport à Madame le maire, par rapport de 2009 à aujourd'hui. C'est la seule femme, mais c'est pour la première fois. Khalifa Sall prend une décision qui est historique. Un maire de la ville de Dakar qui donne des responsabilités qui donne de grosses responsabilités aux femmes, je crois que ça, c'est à magnifier. Elle, choisit ou propose une femme à la tête de la ville de Dakar. C'est une première de toute l'histoire politique du Sénégal. Et ça, c'est à magnifier. nous demandons à M. Khalifa Ababakar Sall et à Tahaou Sénégal de perpétuer cette histoire parce que c'est la seule femme sur 19 maires de commune euh, de ville de la seule femme donc sur 19 les leaders s'étaient s'étaient engagés ici Sénégal à dans les listes qu'il y ait de maires femmes aujourd'hui nous avons de cette ville qui a un bilan dont tous ses conseillers et dans les rues de une dame qui est une mère et une mère exemplaire, une dame qui s'est penchée sur les problèmes sociaux de Dakar, des familles, des femmes et des enfants et des jeunes, en termes d'emploi, en termes de santé, en termes de voirie, en termes d'éclairage public, en termes de tout ce qui est social. Je crois que tout est visible. Donc, Madame le maire, sachez qu'aujourd'hui, vous avez le soutien de Dakar, vous avez le soutien euh, du conseil municipal c'est-à-dire de ceux qui sont à Tahaou Dakar et d'autres même qui ne sont pas à Tahaou Dakar. Donc, Madame le maire, soyez sereine, soyez forte. Vous avez Dakar auprès de vous, vous avez les femmes de Dakar auprès de vous, vous avez les jeunes de Dakar auprès de vous, mais vous avez aussi les enfants de Dakar auprès de vous, parce qu'avec vous,